démarche yi sama kilifa gi di seyaatu euh, doon na ci dox bëgg ko lool waaye yàlla suñu borom dafa dogal ma xam ne ginnaaw ci ak bëggam la woon ma ñëw taxaw ci ànd ak ñi nga xam ne mooy toute la direction générale des Hizbut Tarqiyyah waxtaan ci waxtaan ci ak Cheikh Mamadou Mountakha mu sawar ci lool soññ ñu lool ci xam ne Hizbut Tarqiyyah lañ bëgg tout some patrimoine matériel i immatériel mu doon loo xam ne dañ koy def ci turu Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul loolu li ñu ko jublu nag li ñuy wax naan les hommes passent mais les institutions demeurent mbir boo ko sosee te sëñ Tuubaa moom ko li nga war a jëkk def mooy danga koy protéger sur le plan juridique euh, sur le plan institutionnel donc ci anam yëpp rek loolu moo waral kon ñu daal di koy def waqf yàlla suñu borom dimbali ñu ba son porte parole ñu ànd ko lépp jaar fi mu war a jaar ba nga xam ne fi ñu toll nii euh, ki fi toogal sëñ Tuubaa lu bokkut ak na mu demee woon nga xam ne sañ-sañ bi amoon na ko naka jekk di ñu digal di ñu tere waaye tamit nag sur le plan juridique ñàkk nañ loolu ba loolu daal di sotti lépp luy patrimoine u Hizbut Tarqiyyah rek dañ koy enregistré daal di koy euh, def ci turu wax mu doo nekk ci turu Serigne Touba loolu it day tax euh, mu doon bien boo xam ne euh, pérennité bi ak sauvegarde bi ak tamit inviolabilité bi yépp day doon yoo xam ne da koy garantir te nag tamit euh, yaakaar naa ne bari na ay mbooloo yoo xam ne ci senegal xam nañ ne euh, waqf ci suñu culture la bokk mais xëj na information bi moom moo des ba ñu bari xamewuñu ko noonu waaye euh, ku ko xamit nanga xam ne mbir boo koy def wax da dangay nangu le regard de contrôle di am saa su ci li ngay def ndax day wane na yow nangu nga ne moomuloo ko alalu jàmbur nag ku ko yor boo koy saytu dama yaakaar ne war ngaa nangu ñu ñëw di ko xool kon ñu ngi sant bu baax di sant la haute autorité du wax ci personnel bi yëpp ci échange yi ak euh, tamit le cas de Hizbut Tarqiyyah ni mu doonee woon un cas d'école ndax ñun yàlla dafa dogal euh, balaa ñuy adhéré mais dañuy waxtaan di xool loo xam ne ci côté bu ne lan moo gën a dëppoo euh, intérêt yoonu mu parce c'est normal loolu nag kon sant nañ leen ci seen compréhension ak ni ñu ko yombalee tey nag kon dañu war a xaatim luy luy wane ne dañoo war a ànd euh, liggéey euh, te it euh, daara ji dafa intéressé wu ci développement ndax le capital humain moo nekk au centre de ce que nous faisons ginnaaw noonu la demee kon li ci baax mooy ñu fexe ba ndaw ñi jigéen ñi créer lu tax saa su ne ñu yëngatu ngir moom seen bopp ba mën a jaamu yàlla moo tax même nous some intéressés par wax fa agricole maa ngi koy wax nga xam ne yooyu yëpp dinañ ko xool nu ñu ko mën a àndee ndax fu ñu am daara rek au Sénégal et à l'étranger nee leen ñaari critère de compétitivité moom la Hizbut Tarqiyyah teg da ngay am daara yi alquran am système éducatif bu performant boo xam ne dafay boole waale aussi arabo islamique waaye tamit da ngay am ay tool di bay di sàmm ñaari daal moom mooy loo xam ne daara ju ko boole ñun boo ñëwee ci suñu biir di nga fa am droit de veto bu dul loolu dañ lay teg ci ginnaaw rek ne la da ngay observateur ngay doon jërëjëf di ñaan yàlla suñu borom lal ñu jotaay bi rafet nañ ci njort ndax sëñ Abou Madiana mii euh, teewaayam ak teewaayu sëñ Sidi Omar Mbacké li nga xam ne euh, man lépp lu ñuy def ci wàllu waqf moom dañ koy ànd mu nga xam ne ñoom comité scientifique bi nga xam ne orientation culturelle bi ñoom ñoo koy contrôler moom moo leen jiite Euh, sëñ Modou Mbacke Galongel mooy waajuram soxna Faati Pend mi sëñ nga xam ne sëñ Tuubaa ko jur moom moo moo moo moo moo jur sëñ Modou Mbacke Galongel te ba daara ji tàmbalee ba bisub tey dafa laxasaay ñu ànd liggéey bi kon maa ngi koy sant di ko gërëm di sant nag toute l' équipe de la direction générale des Hizbut-Tarqiyyah ak les représentants des cellules des Hizbut-Tarqiyyah au Sénégal et à l'étranger la haute autorité du waqf dalal ñu dalal bu am bu rafet di ñoo njëkkee ci sëñ Muntaxa Mbàkke mu ñaanal ñu ba pare relever toute la diligence bi nga xamante ne moom nañu def sur instruction du président de la république bi mu ci wax moom ak toute la vigilance du ministre des finances et du budget monsieur Mamadou Moustapha Ba pour que ñu instruire la constitution du WACF Hizbut Tarqiyyah au nom de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul muy le premier waqf d'intérêt public au nom de Cheikhul Khadim mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ne bu mbir bi gaawee ñi jëmmal ko mu yomb Hizbut Tarqiyyah daf ci am taxawaay bu am solo tey jii nag dans la continuité de la constitution de du waqf d'intérêt publique bu au nom de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul di ñoo ñëw pour signe benn convention de partenariat entre les deux entités li ko waral mooy que dafa am ay synergie d'action yoo xamante ne jàpp nañ ne ñaari entité yi war nañ ko mën a am suñu lëkkaloowee ndaxte nag umpalewul haute autorité du WACF li ko fi teg benn loi la la loi relative au WACF de mille 2015 loi bi nag président de la république biñ ko jëlee dafa jëmmal haute autorité du wax jox ko ñetti mission bi ci jiitu mu di vulgariser maanaam wasaare WACF si suñu réew ndaxte WACF nag mag ñi dañ ko doon def am ñoo xam ne itam ñi ngi koy def te xamuñ ne ñu ngi def WACF te mu war leen jëriñ ci seeni dund ak suñu dëddoo itam président de la république Macky Sall jël beneeni décret mu ñuy wax la décret euh, le waqf public monétaire nga xam ne benn fonds la boo xam ne dañ koy placer dañuy def ay placement yu dëppook charia lépp lu muy jur ci alal itam dem ci daara dem ci assistance aux personnes vulnérables maanaam néew ji doole ji mu di lu am solo ci waqf monétaire boobu noonu nag tàmbali nañ ci benn liggéey yàggul dara ci ay fan yu néew ngir mën a enrôler téeméeri junne ndongo daara seeni ustaas seeni sayda seeni njaboot ak ndeyu daara yi kon nag mu di eh, ne eh, di xamal askan wi njëriñu waqf parce que état nag suy def waqf c'est pour montrer l'exemple pour que ñi xam ne yoon bi nii la ci mbirum wax waqf waqf d'investissement luy jur aral di dimbali néew ji doole te loolu nag isbu tarxiya daf ci yàgg nekk waaye li ci bees mooy isbu tarxiya dafa dëppoo ak loi relative au waqf de 2015 maanaam daf ko formaliser te li am solo ci loolu mooy boo ko formaliser dafay tax mu am benn encadrement juridique pour que nag ëllëg ak ci biir wakf bi mën ñu survivre te loolu nag boo ko demee def démarche bi au auprès d'un notaire daf lay jox benn acte notarié boo xamante ne copie bi dinañ ko jébbal autorité du wakf pour que mu mën a jouer benn rôle de contrôle et de supervision maanaam képp ku defati léegi sa wakf si suñu réew haute autorité du wakf dina ko saytu sa ngiiru dund waaye itam am na solo lool soo dëddoo et su c'est tout le sens de cette loi Hizbut Tarqiyyah comprendre ko loolu ci ndigalu sëñ Mountakha Mbacké ñu jël yoonu formalisation boobu noonu ñi am yaakaar ne ça va faire tache jur dans la communauté et dans tout le Sénégal incha allah